moo bëgguma ànd yow wala ndaw si ñaam seen couple bi dafa rafet non man maa bëggut a ànd yow nga naan ma lan man li moo tax bëgguma nekk yow seen couple bi rafet na mu kontaan nag you was happy when she says that kontaan buñ la nee sa baay yow teg nga ma bët de you was happy I am not happy to be with you man maa bëggut a nekk ak yow xool ma rek man rek ci xale xeere woo kooku xeeru géej waaw maytul dinaa la wax dinaa la wax <laughs> la ma sanday doxaane boo moytul di nga dégg ay bal dama mbay barki yéen bi boo moytul xala di nga dégg ay bal ay bal laa lay de nan la ma sa yaay doxaane boo moytul di nga ko dégg jéppi naa ko jéppi naa ko kii man ngay def chauffeur li may daj de doomu jigéen tànnal moon damay dem de aw ma journée bi yëpp wala dàll bu fi ne look at these these yow yii moom nga sol nii moom nga sol ni yii de moom nga sol mbay mbasu moo tax euh, ni ma sonnee ci yow nii euh, ëmb juróom-ñeenti weer benn bës nga bëgg maa yóbbu laa xew bés boo amee jëkkër ju baax ma perte la lan li nga bëgg Okay, come on. go. You already seen the Converse. Converse. Yeah, let's take. Let me go. Jël. anniversaire bu mel ni ngéntal taaw mel ni ku jëm grand théâtre pare nga ñu dem loo ci bu bu la far bu assuré sax bu bala you want those one mm-hmm. tell to bring the size the right size ñii doom bu jigéen ñu la la cadeau ni rek ma tegal ko ko nii ci néegam bi bàkki wala ni ma ci sonné ha xaar teg ko nii bi ma teg ko nii bii ma teg ko nii bu ñëwee ba gis ko dina ko kii sonal na ma kii billaahi mbay ma su sonal na ma bis boo génnee kër kër gi ba sëyi duma ko sax gëme li ma daj ci yow maa ngi nii cadeau anniversaire chaque année nii laay def ma waxee nga may tontu dama mbay lakkal nga ma sama doom yëpp yaa ma ci gën sonal anniversaire boo xam ni daa mi day daa mel ni dafa mel ni 31 décembre lii. te jël yi. Somebody's mad. kenn meru first up we got this yow I know this I'm like this I literally said this is like a card. oh wait where am I got another curve. Look, auntie. Oh, this is all my stuff I picked out from the store. I got this. What's that? Purple? Purple, yeah, for my hair. My llama from the hair store. I got a, a bonnet, rubber bands, my EOS lotion. What is this? Let's smell this. It smells so good.